dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaa ñu xëyando wolof njaay nee na lëngoon neex na waaye ko bàyyi mu dem ak mu Moustapha Cissé Lo ak njiitu réew mi di président Macky Sall ñoom ñaar lëngoo woon nañu xeex ba jot ci réewum Sénégal waaye nag jamono ci seytaane dox na seen diggante ko nañ yéen kaay gii di réew mi ko di je xëy def si ab jàngat nee na Moustapha Cissé Lo kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko maanaam ay saaga am ñu mu saaga ci réew mi loolee moo tax ñu dàq ko commission discipline bi démb ñoo gisee seen biir réunion ba ñu fa génnee ci la ñu ko dàq waaye nag ci Sénégal li nga xam ne moom lañ fi faral di wax mooy Assane Diouf mooy ki dàq saaga ci réew mi waaye bu dàqee saaga ci réew mi ba ñu koy wax insulteur numéro un jamono ji bu ñu neexee mën nañoo wax ne Moustapha Cissé Lo moo ci topp maanaam mooy numéro deux ndax Cissé Lo yàgg nañu koo dégg mu yëkkati ay kàddu yoo xam ne maanaam ay kàddu ñaaw la ay saaga di ko tifaare ba ñenn ñi sax dañoo jàpp ne Cissé Lo lu mu def ci réew mi maanaam dara du ko ci fekk journal bi nee na Cissé ak taxawaay bi nga xam ne jamono ji daanakay amee taxawaay bu mel nii la amoon jamonoy Abdoulaye Wade te nag Cissé su génnee opposé Macky Sall daal mbir mi mën naa tar lool ndax Cissé ko ko xam xam ne nit la koo xam ne kuy sulli ay mbóot la te xam na dina jafe lool ci Macky ngir nag mu amaat man mandat te parti bii di APR jamono ji xar na fukki ngàll ak juróom-ñaar journal bii di réew mi quotidien ne sax commission discipline bi nga xam ne moo dàq Moustapha Cissé Lo est-ce wuñ li nga xam ne mooy texte yi ndax li nga xam ne mooy règlement bi dafa wax ne ki ñuy dàq kooke war nañu ko daal di déglu a kaay gii de la turbine ñu Moustapha Cissé Lo nee lu ëpp tuuru waaye am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi sàkku maanaam ñu jël ay daan lal ko ci ndoddul Farba Ngom ndax li Moustapha Cissé Lo wax rek la Farba Ngom wax journal bi ñu xëy fekk fa Thierno Bocoum la mu xam leen nee na Moustapha Cissé Lo saaga yi maanaam du gan ci Sénégal yi ndax yàgg naa saaga ku jéggi te nag dara du ko ci fekk lu dul ay neexal waaye nag Cissé Lo bu ñu ko daaxee ci biir parti APR loolu ñoomu neen la waaye nag li nga xam ne mooy yitteel Sénégal yi te procureur war see a leer mooy li Cissé Lo wax ci train ak réfection building administratif bi nga xam ne nee na ay njuuj njaaji ki ndëgg sërëx gi toppale daf caa daal am loolee la ñu war a lijjanti yéen kaay gi de la sa ñu fekk fa Moussa Diaw professeur kat nekk université Gaston Berger nee na parti bii di APR ak pëccëxoo gi nga xam ne maanaam pëccëxoo na ko doy na waar waaye nag amul benn référence boo xam ne maanaam ma nga faa yéen kaay gi de la témoin mu xëy di ñu xamal lan ñu Moustapha Cissé Lo daq bi ñu ko dàq maanaam mode fast track la dañu ko saax-saaxee waaye nag Cissé Lo lu toll si juróom at ci biir réewum Sénégal ñëpp nemmeeku nañ ne façon saaga bu nekk maanaam saaga na ko ci réew mi maître Djibril War nekk ci parti bii di APR la mu xam ne nee na Cissé Lo am na sañ-sañ def ab recours maanaam jéggalu te bu jéggaloo Macky Sall mën na koo jéggal maanaam mu duggaat ci rang yi te Farba Ngom mi nga xam ne maanaam moom ti moo jël audio yi tasaare ko ci mbedd mi ay daan war naa tege ci kawam ndax Cissé Lo li mu wax lu mel noonu rekk la far ba ngoom wax yéenekaay gii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu ki nga xam ne moo tasaare audio yi Cissé Lo yi lan moo ko si mën a fekk benn atu ba juróomi ati kaso yéen kaay gi di Sud Quotidien mu xëy di ñu xamalal ñu assemblée nationale ñoom génne nañu ab communiqué waaye nag ànduñu benn yoon ci kàddu yi nga xam ne Moustapha Cissé Lo daat nekk yëkkati Moustapha Diakhaté moom jóg na di tubayul Moustapha Cissé Lo ndax nee na giraawali géeg njombe géeg lépp Macky Sall la ndax ay at a ngi nii mu bàyyi ñu nekk ci biir parti APR di saagante ci presse bi Macky Sall na pata pataaral te nag mbir mi Macky Sall la Moustapha Diakhaté nee na Moustapha Cissé Lo du ñàkk benn yoon li nga xam ne mooy mandat député ma ndax démissionné wul maanaam dañu ko dàq loolee wax te nag Macky Sall dafa war a arrêté dérive yeeg njomb yeeg tojaange yi nga xam ne maanaam moom la nekkee ak làmbatu yi du suñuy kàddu kàddu yi Moustapha Diakhaté la kay gi di source a mu xëy di ñu xamal ñu ci ay xibaar Moustapha Cissé Lo bi ñu ko xibaaree naka dàq nañ la maanaam dafa daanu crise ba dem hôpital journal bi de la mu xëy di ñu xamal lan ñu Moustapha Diakhaté ak Moustapha Cissé Lo ndax duñu dem lëngoo ji ak Idrissa Seck laas yéen kay ñu fekk fa kaani bay maire socialiste bu la mu na Yakham Mbaye ak Moustapha Cissé Lo ak Farba Ngom ñoom ñëpp bu Macky Sall jógee ci réew mi danañu leen dugal ci kaso bi yéen kaay gi du Sud Quotidien mu xëy di ñu xamal laan ñu njiit réew mi di Macky Sall jamono ji am na ñaari jafe-jafe yoo xam ne ngir mu lijjanti ko dina jafe lool la partem bii nga xam ne mooy xar ñaar ak woppi coronavirus ji nga xam ne maanaam xaajamal na ñaari lu mandaam bi journal bii di évidence mu xëy di ñu xamal laan ñu Moustapha Cissé Lo fu mu mën a jëlee ab sëriñ bay boo mu wëri ko ndax jamono ji maanaam gars yi pare nañ ngir dugal ko ci kaso bi yéen kaay gi de la témoin mu xëy di ñu xamal laan ñu Alioune Sarr mi nga xam ne lañ dénk wàllum commerce jamono ji dañu ko quarantaine ndax ne nee na dafa jege yantoo ak koo xam ne dafa amee coronavirus journal bii de la témoin xëy di samp ab laaj daal di wax ne quarantaine yi maanaam tàppale gouvernemental la wala gouvernement buy gundaandaat la yéen a kaay gii de libération mu xëy di ñu xamal lan ñu mbirum jaayug drogue dure gi nga xam ne mooy jaabaa jónge ci réew mi doy na waar benn waay boo xam ne ab cabinet la yor maanaam di faj lu jëm ci wàllum bëñ fekk yu day jaay li nga xam ne mooy drogue dure bi nee na ñi nga xam ne ñooy ay client bu ñu ñëwee nag dañuy mel ni maanaam seen bëñ mooy metti bu ñu ñëwee mu bokkal leen drogue bi ñu dem jamono ji teg nañu ko loxo journal bi di réew mi quotidien dikk na ci wujje gi nga xam ne jamono ci mooy jàbbaa jonge ci réew mi journal bi nee na ay jafe-jafe ak liggéeyante ak firange yu doy war moo ci am journal bi di Stades mu xëy di ñu xamal naa ñu Liverpool football na lu toll ci téeméeri match ak juróom-ñeent maanaam juróom-ñetti defet rek la am Liverpool 2017 ba léegi amul defet ci stade am bii di Anfield